سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا mbokki jullit yi maa ngi nuyu ñëpp ci di ko commencé ci sëriñ Muntaxa al xalifatul di ñaan yàlla subhanahu wa taala mayaar ko fan wu gudd ak wér di ko ñaanal mbokkam bi Cheikh Ahmadul Maxtaar mi nga xam ne mooy xalifatu Daaru Xuddoos di jël suñ kàddu gi nag ci ndigalu suñ bàyyi suñ waajur wii ci kaw mu sëriñ Bachir Abdul Xaadir di wax ci moom ndax moom mooy kilifa jataay bi ñu nekk mu toogal fi magam ja sëñ Ahmadul Maxtaar waaye mu toogal fi magam ji Cheikh Mouhamadul Mourtala Muntaxa mi nga xam ne moom mooy porte parole jarul may insister sëriñ Cheikh Bass ndax sëñ Bass wax na ko ci liggéey bi muy liggéeyal maamam fii ci yoonu sëriñ Tuubaa wi ak dal gi ak tey gi ndax dafa bokk ci qualité yi gën a am solo booy jiitee nga am ak dal ak mën a am résilience saa à nga mën a supporter lu baree baree bari te moom yàlla def na loolu dal na ko kon sëñ bi ñu ngi lay siyaare ci turu comité d'organisation bi li may wax nag yaakaar naa duutu bareeti ndax ñépp xam nañ solo bis bi solo bis bii leen rekk la mooy Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla buur bi mooy seet lu ko neex mu def ko faalun lima yurid mu am nammeel ci Cheikhul Xadim tànn ko nattu ko lim ko natt ndax suñ boroom moom mooy ki nga xam ne day jaay lépp bala laa jox dara il faut mu am fu mu jaar ak yow Sëriñ Tuubaa natt yooyu yépp nag yàlla defal na ko ko ci may yu rëy rëy rëy sëriñ boobu nag jarul may titiller l'histoire dellu sëñ tubaab liggéeyam waaye ne daal sëñ bi liggéey na ba génn àdduna waaye ne sëriñ bi mu fi nekkee sëriñ Tuubaa li lim lim jëf mooy lépp loo xam ne ni subhanahu wa muy muy alquranil karim daf nu koo digal moom loolu la nekkoon di insisté dina ko jàngal di nu jàngal nu ñuy xamee yàlla ak nu ñuy demee ca yàlla jaarale ko nag ci sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu nu fi bàyyi itam bi mu nu jàngalee dund ak ñun dund ñun ci lislaam du ko jëfe du ko pratiquer ñu koy gis ci moom waaye ne yemu fu mu bind lépp ci ay téere bàyyi fi léegi nag mu dem bi mu demee nag bis boobu mu demee ba tey jii mu nekk cent ans la ñuy évaluer di xool ba xam ñun évaluer wul Serigne Touba de ndax Serigne Touba lam def def na ko jàngal na nañu xamee yàlla jàngal nu liggéey ba mën a teral suñ bopp ci àdduna di ko jëf ci kanamu nit ñi dina ko wax bind bàyyi fi léegi nag moom kenn càmbaru ko ñun ñii mu fi bàyyi à partir du jour bi mu fi jógee àdduna ba tey centenaire cent ans yii ndax ñun li nu fi sëriñ Touba bàyyi woon muy lislaam ak nangoo liggéey ndax ñun pratique nañ ñun suñu bopp lañu ñuy càmbar bu buñ nee màggalug Daaru Xuddoos màggaluñ màggaluñ ndax yàlla rekk lañu màggal wante moo da ngay jël moo bi ne màggal mooy à partir du jour bi sëñ bi génne àdduna ba cent ans yi ñu évaluer li nu sëñ bi bàyyi loon ba xam lan lañ ci def ak lu matut ñu fas yéene caa topp ca loola ba mottali ko bind fi ay téere bàyyi fi xamal ndax génération yi ñëw mën a xam yoonu murit fan la déparé ak fa mu agsi ndax nit looy dugg lu ne war ngaa xam naka la loolu moo waral moo waral euh, càmbaru bis bi bis bi nag bi mu ñëwee sëñ Ahmadul Maxtaar mi nga xam ni mu daa organiser màggal Tuubaa gi li ko jiitu ay magam ndax sëriñ Cheikh ngay Gaïndé ma gannaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha moom moo continuer doon def màggal gi ba ak rakkam ci topp yépp ba mag sëñ Ahmadul Mokhtar bi mu ñëwee ci sëñ Ahmadul Mokhtar ren jii mu ne comme que cent lay am kon dafa am beneen cachet bu am importance mu woo njabootam gépp nanu dama bëgg ren ji ngeen taxaw liggéey ci centenaire Serigne Touba bi yabal nu ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifatu am bañ demee toog moom waxtaan ak moom moom moo gën a am jël ko noo xam ne nii c'est extraordinaire ndax sëñ bi bi ñu waxtaanee wax na nañu ci loo xam ne nii dafa nu gën a encouragé ba pare yamu ca mu daal di séance tenante mu ne. ñaate ngeen yaakaar ne budget bi dana ko toll ma dee ko ne ko cent millions dama ñu amoon dana ko mat mu ne kon jox naa leen woolu cheikh mohamadul bachir mi yónni ko sëriñ ahmadul moxtaar jox ko chegu cent millions sëriñ ahmadul moxtaar jox nu chèque boobu lu ñu def lépp sëñ taxa Mbàkke moo ko def kon ñun jullit yépp war nañ koo ñaanal ndax du du ci yoonu mu rek la yemale les les bonnes œuvres sëñ Mountakha fa mu déggee diine am lu fa xew dana agir kon nag du murid rek ñoo ko war a ñaanal mais ñun jullit yépp war nañ koo ñaanal ndax kuy liggéey lislaam te damay wax ne Serigne Touba du murid yi ñoo ko moom Serigne Touba lislaam la doon liggéeyal universaliste la kon jullit yépp ñoo moom Serigne Touba biñ defee loolu comité bi dem na ci njabootu Serigne Touba yépp waxtaan ceeg ñoom. ñu apprécier ko baax a baax waaye sëñ Mountakha dafa na waxoon tam képp koo xam ne nii confrères yi fi nekk yépp ak association islamique yépp ñépp ñu yëngatu ci lislaam na ngeen fexe ba ñépp ñu yëg ko mu Mountakha loolu la bi ñu waxee bi ñu demee ci njabootu sëriñ Touba dafa ne koo yëngatu ci lislaam na ngeen dem ci moom yëgal ko bis bi te loolu def nañ ko dem nañ ci kër kilifa yépp dem nañ ci association invité nañ leen da ñépp ñëw nañ macha allah Euh, comité bi nag biñ koy def comme ni ma ko waxoon démb ca njaareem du dama fee ëpp da ëpp xam-xam wala dama fee gën ndax ñu ma gën a ngi ci biir ñu ma ëpp xam-xam a ngi ci biir kon suñ ma tànnee jiital ma sant yàlla rek ca xam ne lu baax ku la ca boole wala ku la ca jiite mooy am na loolu lambal suñu borom subhanahu wa taala comité boobu nag dañoo am liggéey bu extraordinaire bu def ndax ay commission lañ ko defoon may devant tout le monde may remercier commission yëpp ak seen liggéey ak ñi nga xam ne ñoo sësoon ci man ku mel si ni ne sëñ Ousmane ne Gaynde Fatma démb nee naa ko yow mi nga xam ne yaa nekk coordonnateur màggal Touba pendant 15 ans. yaa ma gën a mérité wu nga toog ci place bi ndax expérience bi nga am man aw moom sëriñ Moustapha Mbakke mu sëriñ Cheikh Mbakke moom it ci coordinateur yi la bokk Cheikh Abdou Bali Cheikh Abdou Mbakke Cheikh Abdou Lahad Mbakke mu sëriñ Cheikh Mbakke Gaynde Fatma moom mooy yor commission communication dama koy répété waat rek ndax waxoon naa ko ko ne ko sëñ bi liggéey nga liggéey bu rafet ci communication bi fu mu war a àgg àgg na fa lee su a def def nga ko kon sëriñ Cheikh Abdou gërëm nañ la bu baax a baax commission culturelle sëñ Mouhamadou Mouhamadou Baara moom sëñ Abdou Khadim mu sëñ Baara moo ko yor moom commission bi nag dafa am dafa am solo trop parce que dafa jiite boroomi xam-xam ñu baree baree bari ñoo xam ni guddi ak bëccëg ñi ngi doon waxtaan ñoom ñoo choisir conférence yi yi ñu def yépp ndax Touba lañ ubbee par des conférences dem Louga. démb ñu ngi woon Diourbel tey ñu ngi Dakar sëñ Modou Baara moo mu yor commission boobu moo choisir ñëpp ñi nga xam ne moo commission bi ñoo choisir thèmes yi ñoo choisir ñan ñoo war a wax ak doomu aadama kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant jëw riñ mbàkk yu fay parce que moom it ñu ko sëñ Bas waxee keroog bi ñu ñëwee fii di def réunion daa yëkkati 20 millions na ma sëriñ lii maa ko ci dugalagul la wax te xam naa am na yu bari yum defaat bâche bi bu mel ni mbàkk yu ci la bokk te depuis boobu ba léegi chaque jour à tout moment à tout temps ñi ngi réunion fii ci mba euh, ci Massalikul Jinaan ca mësta tarde benn réunion orientation ak waxtaan yi mel noonu mu jël comité d'organisation bi nekk fii ci Massalikul Jinaan ñu ñëw ànd ak ñun ñu def liggéey ni ma ko daa waxee tam aussi lii bu réussir itam dafa am ñu ci ànd ak ñun mooy daayira yi wax naa ko njaareem sëñ Moustapha Mbacke mii di doomu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu koy woowee njëñ astu moom mobilise ne wax waa wilaay yépp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna muy Jurbel muy Touba muy Dakar ak fu mu mën doon na ngeen mobiliser wu te wilaya gi def nañ ko point yi ñu dem yépp gis nañ seen mobilisation sëñ Moustapha Mbacke Mohamed mu sëriñ Mbacke Soxna Lo sëñ Mbacke Soxna sama xalifa sama xarit sama lépp sëñ Moustapha sëñ Baara mii lañu booleel sëñ Baara mii rakkam muy daayira ahibaay yi ñoom it partout muy Diourbel muy Touba muy Njaareem ak fii mobilisation bi ñëpp gis na kon ak waa kër sëñ Mbàkke Madina waa kër sëñ àll may ñoo ñëpp mobilisation bi moo tax fu ñu dem rek yàlla defal nu fa réussite waaye nag may defal mention spéciale ci famille Serigne Bara Mbàkke ndax non seulement daayira sëñ baara yi ñëpp mobilisé ànd ak waa wilaaya ak waa ahibaay fu ñu nekk lépp ñoo ko bokk di ko liggéey waan daa yemul ci daayira yi waaye njabootu sëñ baara ci boppam njabootu sëñ baara ci boppam ñoom ñoo mobilisé wu te ñoom seen représentativité ci lépp lu ñuy def ñooy jël record fu ñu mën a dem ñëpp ay taal seeni oto ñëw ñëw fa ci njabootu sëñ baara Louga sëñ mu xalifa sëriñ Siidu sëñ Siidu Moxtaar di xalifa sëñ Baara moo ñëw ànd ak sëñ Abdul Karim mii ca Louga ga sëñ Abdul Karim mi ngi nii jógewaat Mbakke Bari ñëwaat ndax li ko ñor mooy Cheikh maamam Cheikh Moustapha maamam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbakke kon waa njabootu sëñ Baara gi ñoom it gàcce ngaalaam te loolu moo leen war ndax Cheikh Moustapha ak sëñ Baara yaakaar naa lenn lu ci defal kenn ñëpp war a mobiliser ndax ñoo bokk lépp ndax démbul wax naa ko ma ne ko ñun waa sañ Baara lu tax ñu sonn ci xam nañ Cheikh Mamadou Lamine Baara ni mu fonkoon magam Cheikh Mamadou Moustapha ndax tey bu sëñ Touba sëñ Mourou Moussa nekkoon di liggéeyu liggéey loo fii mu fekk sëñ Baara yaakaar naa mooy jiitu ci liggéey boobu kon lépp lu ñuy defal sëñ Mourou Moussa njabootu sëñ Baara taxawaay bii ñu ci taxaw noonu rek lañ ci war a man a taxawee. Abdoulaye Dia def na teraanga yu rëy jaarale ko sëriñ Bassirou Mbacké Xaadim aw bi mi ñu ngi koy gërëm ndax non seulement ni muy taxawu alquran karim waaye nag fépp loo xam ne ni Serigne Touba ma nga fay yëngatu moom dana ca dugal loxoom kon moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant ci turu comité bi euh, sama kàddu daal loolu rek la woon pour gërëm ak sant discours yi war a ñëw nag am na ñu ko war a wax sëñ Modou Bara mi nga xam ne mooy Modou Bara Abdou Khadim commission culture bi moom mooy def discours bi au nom de Serigne Ahmadul Mokhtar Mbakke bu paree nag Serigne Cheikh Bass mooy kilifa gi moom moo mooy tontu ñëpp ñaanal ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. du ma du nag ndax day na al aqrabu awla al aqrabu awla te imaam Habib lii mi nga xam ne mooy suñ imaam te Liberté 6 muy nitu xam-xam bokk ci lépp lu yëngu ci diina ji fii ci Sénégal ba ma ko ko waxee amoon na yeneen xew-xew ak yeneen waaye dafa bàyyi lépp ñëw fii jëmmal bi bu toll nii kon imaam ak délégation bi nga àndal ñu ngi lay sant la gërëm ci turu sëriñ Muntaxa Mbakke ci turu sëriñ Ahmadul Maxtaar Mbakke ak turu comité d'organisation bi fi nekk maa gërëm du ma tam sans pour ma remercier jigéen ñi seen coloration dafa baax ci xew wu ne te fépp ñu dem nag jigéen ñoo fa gën a majoritaire kon cant gi ñu cant ak di ko ñaan ci sëriñ Touba di ñaan yàlla mi nga xam ne moom moom lépp li ngeen def ak li ngeen liggéey yàlla na leen ko yàlla fay barakatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, baax na bokk